mbokk internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme 5 TV euh, ma ñëw ak yéen ci benn série bu bees tàkk di Mariama euh, pour defar leen nag euh, décortique dooree ko ci épisode zéro bi nga xam ni mooy lométrage bi ñu dugal ñu door ko ak séquence bi ñu def ci école bi muy séquence boo xam ni li ñu si dénoncé bari na te mooy li nga xam ni mooy xew ci école yi muy ci côté élèves yi ak ci côté enseignants yi. ndax école euh, barabu uteekaayu xam-xam la ba tax muy élève wala muy euh, professeur euh, dafa am rek benn comportement bu ñu fa war di wane ndax gis nañu fa ay élèves yoo xam ni jànguñu bàyyiwuñu waaye nekkewuñu fa lu dul teg dil ak jëf ay pexe ngir mën a génn ci devoir yi te seen pexe du dara lu dul tricherie tricherie nag képp ku koy def rek war nga ko bàyyi ndax tôt ou di nga ko rëccu ndax même boo fexee ba am ci diplôme yi itam du la jariñ dara ndax kenn mënul tricher ba am liggéey képp koo xam ni nag yaa ngi jàng yaakaar naa jàpp ci dara ëllëg moom moo ko waral ak am ci xam-xam te loolu kenn du ko am ci tappale wala naka sudul noonu ba tey gis nañu ni euh, professeur euh, boo xam ni moo ngi doxaan élève am loolu nag bari na ci école yi waaye nag du ma ni baaxul waaye rafetul xol nag amaana parfois mu tooñ nit ki ndax mbëggeel du tàggoo waaye xol dañu koy jéem a contrôler ba bu la bëggee dugal ci yenn yi wala su bëggee déraper nga daal di koy euh, jubbanti tegaat ko ci yoon euh, ndax ki ngay jàngal boo ko xoolee comme euh, bëtu rakk wala doom bi nga bàyyi sa kër kon amaana yenn sentiment yi doo ko yëg ci moom te gis nañu ni professeur bi di monsieur Ndiaye dàq na ay élève parce que dañoo tricher waaye teg na euh, ci ay bëtam euh, ndaw si nga xam ni moom lay euh, doxaan muy tricher te dàqu ko waaye da ko bàyyi mu jàll loolu nag injustice la te mbëggee mbëggeelam moom moo ko ko defloo te sax bu professeur demee ba nopp élève na ko yemale na ko yemale ci mbedd ma bañ koo dugal ba si école bi ndax foofu diggante kuy jàng ak kuy jàngale moom moo fa war a am ñu jàll ci beneen séquence te mu dox ci diggante di ak yaayam Beydi nag ni mu waxee ak yaayam tegginewul euh, te euh, xameewuñu ko rek doomu Sénégal euh, moom daal mën naa ni sax comportement tubaab la wan yaayam ndax fii ci Sénégal amuñu ku culture di yamale sunu waajur yi wala di leen limité ci sunu bopp li nu xam mooy famille élargie papa yaay doom tante umpaañ ak yeneen ak yeneen waaye béy di li mu wax yaayam naan ko booy ñëw sama kër dooma tàggu ay boo ñëwoon gardien bi tere laa dugg mu mel nii rek kuy wax ak jàmbur loolu nag lu ñaaw la ci diggante doom ak yaay bi nga xam ni moom moo la euh, jur ndax yaay euh, doom euh, mënu koo fay ndax koo xam ni moo la ëmb juróom weer bés ñëw mu métti lool ci moom pour rek nga mun a ñëw ci àdduna kooku yaakaar naa di ko neexal rek moom moo la war kon béy di bu moyuwul fu muy mujjee rek du neex ndax yaay moom waajur li ñuy wax rek doj la te doom nen la boo dalee ci kawam toj te bu dalee ci sa kaw toj kon nañu xoolaat bu baax a baax suñu diggante ak waayjur yi ñu gis tamit bi nga xamee ni Abibatou di jabaram wàcc na euh, muy justifié wu ci li tax yaayam ñëw fa euh, waaye leneen li ñu gis ci séquence bi mooy yaayu euh, Beydi mel na ni bëggul abibatu ndax bi mu koy nuyu da koo soofantal mën naa ni sax bakkan la ko fayee ba tax comportement bi mu am ak moom ci table à bi day gën dëggal ni bëggu ko wala dara neexu ko pour l'instant nag xamaguñu li nekk ci seen diggante ñoom ñaar waaye Abibatu moom gis nañu ni yar ak teggin la ko wanagum ñu jàll ci euh, monsieur Ndiaye di Bassir ak euh, Nadège mi nga xam ni mooy élève élève bi muy doxaan Bassir nag daa mel ni rek Nadège da koo napp daa mel ni instant bi euh, moom moo koy contrôler lu ko neex rek moom lay def loolu yëpp nag moom moo ko teg boppam ndax xale bu ñemee mag mag moom moo ko ubbil buntu bi te ku ku ñàkk fayda rek bay doxaan sa élève wala sa moroomu doom loo ci euh, góobe rek euh, danga ko war a euh, gar te it su boobaa doo amati dara looy bañ ñu jàll ci Kalidou ak tontom bi nga xam ni mooy tont almaami di ki nga xam ni moo ko jàppale taxawu ko ba tey mu am teraanga ba si jëndal papaam oto nijaay nag mooy yaay kon tonton almaami waree fam la def te xam li la war def ko loolu du ngóora waaye nag dafa nekk rek ni daa def li ko war war waaye nit mu ngi xam li ko war te defu ko kon Kalidou li ko tonton wam defal nit ñi war nañu cee roy ndax bu doon ku tane sa moroom eh, jàppale ko ni ko noonu eh, réew mi ñàkk bi dina ci wàññ dina fi wàññeeku bu baax a baax eh, ñu jàll ci Kalidou ak yaayam kalidu nag bi mu demee kër tonton Almaami daa gis Mariama mi nga xam ni moom la ñu tuddee yaayam waaye itam mooy doomu nijaayam Mariama nag mu gis ci moom yar ak teggin teey dal ba tax rek mu ni yaayam da koo bëgg euh, jël euh, soxna Mariama nag boobu euh, seede bi nga xam ni moom la moom la Kalidou def ci moom seede boobu la surveillant bi nekk ci école ba def ci moom xale nag bu fekkee ni école ba yar lañu la fa seedeel sa biir kër bi nga xam ni ci nga dëkk yi itam ñu seedeel la fa lu ni mel kon yaakaar naa day fekk rek looloo am te yar nag lu mu la mayu rek du la ko xañ ba tax lu am solo la ci xale waaye Kalidou li mu bëgg papaam ko waaye nag gënalu ko ndax li muy ragal mooy euh, bu takkee mariyaama euh, sëy ba am problème yàq digganteem ak euh, almaami ndax dañu naan sëyu mbokk bu tasee rek mbokk ga day daal di tas te almaami ji na leen loo xam ni lu ñaaw warul am ci seen diggante di jóge ci ñoom seen côté waaye nag mujjee naa nangu ndax xamal na Kalidou ni ko yow loo bëgg rek dañu ci dañu la ciy fekk si loolu nag li ko ko may mooy wet bi nga xam xam ni moom la wekk ay waajuram te muy nag li war ci diggante eh, doom ak waajuram ñu jeexal ak séquence bu mujj bi Kalidou nag daa mel ni ku bëgg a wor ndax laata muy dem kanadaa daa am ku mu doon bëgganteel muy biige ba am ak moom doom te dakoo nag muñaloon eh, lu baree bari te it moom Kalidou digoon na ko nii bu ñibbisee da koy eh, takk te moo ngi ci yoon takk ki nga xam ni moo di Mariama di cousinam wor nag moom du lu baax waaye nañu xool rek ba xam fu ñuy fu ñuy mujjee ak seen euh, diggante euh, yooyu noonu kon mbokk internet yi fii laay yam ma jox leen dig daje si beneen épisode waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5TV te bu leen fàttee bës suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah.